ca capitaine ziar nañ la. waaw ndeysaan capitaine waxoon nga ma ko. neewoon nga ma da ngay jëli score bi. waaw naa la kay. ndeysaan gis nañ ne euh, bi euh, métti na torop ci départ bi métti woon na ndaxte ci premier mi-temps bi gis nañ ne. jël jël nga 2-0. waaw ñu dem ba période bi ñu gis ne euh, égaliser nga. dem sport rek parce que man moom gëmoon dama ko gëmoon quoi. Mm-hmm. gëm naa ne fekk temps bi jeexul rek. Mm-hmm. toujours dañuy dem rek ci ANACIM rek. te ASC bi ASC bu mag la. Mm-hmm. parce que ñun ñoo nekkoon favori tamit. bii li ma la waxoon bu njëkk rek bii erreur la. waaw gëm nañ ne dañoo jël bii erreur. mais ba tey rek taxu ñu bàyyi quoi te waxoon naa la lu métti métti rek dinañ dinañ école bi te yàlla def na noonu la demee quoi waaw gëm sa bopp rek waaw affaire moom foofu la. ndeysaan gis nañ ne kër Aliou Diop euh, moom aussi démérité mm. ndax euh, football na def na li mu mën. Mm. mais yàlla moom mooy joxe ndam. Mm. tey ñoomin ASC ñoomin ka bi la yàlla jox ndam. lan ngay wax waa kër Aliou Diop. waaw découragé parce que ay doon nañ fi ay champion. ku door Baobab de Mbulu. ku door Baobab de Diossong autant pour moi. door door da doon jongoon équipe yu mag la génnee. waaw parce que moo génnee ñooñu yëpp après ñëw kon nag kon def na def na effort mais yàlla ma waxoon ñun ñoo koy jël rek mais ñun tamit ASC e bu mag lañ parce que fii presque zone bi ñaari ASC e dañ fi gën a jox muy mbulum ak kii nii ak bamugaan la ASC Ndiamé e Ngor te mbulum man ak moom ñoo dajoo demi-finale yàlla def ñu door ko kon lu métti métti rek gëmoon nañ ne daal dinañ gagné quoi ndeysaan waa ASC Baobab tamit ñu ngi leen di encouragé waaw parce que euh, leen wax ne yéen aussi Euh, góorgóorlu ndax fi mu nekk nii yaakaar naa phase départementale mo def lan ngay ban message ngay lancer fofu non ci phase départementale bi ngeen. waaw phase bi dal dañ fa dem ci jàmm hmm. ah gaay yi ñu ñew en masse parce que dañ fa wane jom encore hmm. parce que ñun mom toujours dañuy wane jom rek waaw fu wàllu mel non mais jom bi nekk na fi waaw di demee di di kii nag di bëggee waa ASC Mbouloum parce que man su may fubal si zone bi su su ma amee match ak ASC Mboulour lay gën a kontaan sama adduna yëpp parce que au moins gis ñu teg bal yi parce que am na ñoo xam ne bu ñu la dóoree hmm. dañuy tëdd si terrain bi du ma wax benn ASC nag mais Mboulour fois day football te te équipe boo nga xam ne ne bëriwul gaayante tension man moo tax man en tant que sutura capitaine de l'ASC ñoom itam su ma amee match ak Mboulour damay gën a kontaan à chaque fois man du ma koy xalaat waaw parce que match bi forcé mu neex voilà ok ndeysaan ay doomu ndey lañ ñaari ASC yooyu hmm. gis naa ay doomu waaw ndax fi mu nekk nii yaakaar naa sport bi bëri na lu mu boole ci ñun tax na ñu miinante tax na ñu xamante tax na ñu ñemewante euh, lan ngay lancé message ban message ngay lancé ci loolu nga xamante ne ASC yi ñu ngi koy def seen biir waaw ndax yaakaar naa daaw ASC ah. Baobab de Mbulum ak ASC ñoomin kabu bu Joosoon ah. football nañu benn match amical ndax pare ngeen match amical boobu waaw euh, waa ASC Baobab de Mbulum ñëw fekk si leen bu ñu koy saa yu ñëwee rek ñu ne ñoom ay xarit lañ parce que ñu ngi dëggante lu ci mel ni ñoom Mido ñoom Mayga ñoom Bastos tout suñu ami lañ toujours tout suñ capitaine bi tout suñ défenseur bi day nekk ak bastos à ah, tout si ligne di bëggee ñëpp ñooñu daal ay ami lañ a duñu ay noon quoi ok waaw. c'est ça dafa war a boole mais warul xaajale. c'est ça mais sutura ñu ngi lay féliciter vraiment ñu ngi lay féliciter. bu baax a di la ñaanal ndam bi yal na la jig. alaamaaleykum yal na jig waa Bambouga. amiin yal na jig waa commune bi yëpp. di barke Seydina Mohamed. amiin ala vraiment kontaan nañ. ok waaw jaajëf